da ngeen di abonné fii si a xam ne dugal nañ ko ngir wax ci wolof incha allah sëñ Mbacke Bousso ak ku ñuy wax sëñ Baara Ñang Baara Ñang moo nekkoon Ilimani Guédé xam ngeen diggante sëñ Mbacke Bousso ak El Hadj diggante bu doy waar la jàng taarix xam nañ ci dara bi ñu egsee ñoom ñaar. ci saa si fi ñu toog la sëñ Cheikh Al Hadj Malick def bayit yi mëti ma nga cay wax ne atat qurrata aynin wa najma saadatin li tajdidi ahdin kaana xayra uqudi fa bashirhuma ya rabbi xayra bisharatin lada alfazai al ala li yowmi shuhudi wala ziltuma kalfarqadayni inaaratan wa multasimay wasfi rida wa hamidi sumiya rasulillahi la ziltuma la ziltuma ala qabulin wa ridwanin wa xayri Al Hadj Malick moom ci jëmmi boppam moo ko def ci jox ko ñaar ñii muy sëñ Mbàkke Buso ak sëñ Bara Ñaŋ sëñ Mbàkke Buso xam ngeen ne moo doonoon mufti yoonu murid wépp ñu bari moo leen jàng doonoon nit ki nekkoon ci wetu Cheikhul Khadim doonoon nit ki nga xam ne boroom xam-xam la boo xam ne Sénégal gépp gépp xam nañ lii El Hadj Malick ko fekk sëñ Modou Bousso bi mu sëñ Mbàkke bi ñëwee dafa def benn bayit boo xam ne mi ngi ko tënkee alxaaji Malick Sy waaw alxaaji Malick Sy la ko tënk waaye yëf yi dafa xaw a bett rek bi may ñëw sëñ bi sax moom a ko tënkal léegi sëñ sëñ ma nga cay wax ne uhdi bahiya salaamin qad tusaayiruhu taxiyatan misla shamsin zaanaha qamar mooy mooy alif bu njëkk gi mooy uhdi boobu la aaxirul bayt mu ne haadi ziyaaratuna jaat lima qasurat an alxuquq li haada alcheikh taataz loolu sëñ Mor Bousso moo ko bi mu egsee ci alaaj Malick lii la ko jox lii la indaale ci àddiya lii la ko alaaj Malick wax loolu lu muy wone mooy diggante bii diggante bu yàgg la diggante mbokk la mbokkuk deret mbokkuk diine mbokkuk réew mbokk ak jublukaay diggante Cheikh Al Hadj Malick ak Cheikh Al Khadim radiyallahu anhu ay njaboot seen njaboot di ko yeesal di ko yeesal di ko yeesal ba egsi tey jii waaye nag liñ ciy gën a fàttaliku tey mooy boroom kër gii ñu ñëw ci moom tey Cheikh El Hadj man yàlla moom ma ko bëgg lool ndax dafa doon jëmm joo xam ne eh, diirub dundam képp barkeel Hadj Abdou ndax dund gépp defar islaax képp moom la doon def fu mu toll rek mi ngi defar xam day defar jëfam day defar gis ko sax boo ko jisee sa xel day nekk ci defar alaaj Abdou Aziz noonu la meloon kon jëmm jooju buñ dikkee ci markaz bii nga xam ne fi la doon yaree mboolem ñim defar fii wax nañ ko sànq ñun ñu ngi sant yàlla bu baax di xam ne it dikk giñ dikk fii wóor nañu ne ña nga ma nga àlaxira waaye neex na ko lool bëgg na ci loolu lii Cheikh Mouhamadou Bachir def wóor na ma ne Cheikh Alhaji Abdou Aziz nga ca àlaxira waaye lii de bëgg na ci loolu Cheikh te lii war nay continuer di wéy ba faw ci diggante ñi kër yi du ñaari kër wax ngeen ko sànq du ñaari kër ñun ñu dikk fii tey ñoo sëñ Bachir tey mooy kilifa kër gi tey moo ñi fi nekk yéen sëñ Mansour ak sëñ euh, Sidi Ahmed yéenay gan ñi nun ñooy borom kër gi loolu wax ngeen dëgg kon loolu lañ ko jàppee nun itam Cheikh Mamadou Bachir nag nee na bég na lool xolam sedd na lool ndax taxawaay bii dafa daf ko yàgg bëgg ba yàlla di ko dogal dogal tey ñu xam ne itam lii rekk moo mën a defar réew mi lii moo mën a defar diine ji diine ji ak réew mi gaa yi ko bëgg a yàq fi ñu ko bëgg a yàqee mooy fexe ba kilifa yi féewaloo rek bis bu kilifa yi féewaloo ñu def liñ bëgg du am nag feeg lii ngi am loolu du sotti mukk yàqkat yi duñ ci mën dara ndegam tubaab yee ci mënul dara wax waxuma laa keneen te def nañ luñ mën kon tey jii Cheikh El Hadj Malick bég na waaye Cheikh El Hadj Abdou Aziz bég na waaye itam sëñ Babacar si bég na mboolem Touba xalif général de Mouride Cheikh Mouhamadul Mountakha nga xam ne Cheikh Mouhamadul Bachir mii du jéggi benn jéego lu dul ci ndigal lépp lu muy def mbaa mu di ko wax ci ndigal ndigalal Cheikh Mouhamadul Mountakha rek li koy def. tey jii mën nanoo waat ne Cheikh bu Mountakha ba nga fa ne waaye xol ba sedd na guy ndax lii rek la bëgg moom lii rek la bëgg jataay bu mel nii rek la bëgg luy defar diine ji luy defar bokk gi luy defar diggante bi loolu rek la bëgg moom lay waxee moom lay defee kon lii tey moom la ko defal jëmmam la fi teewee jëmmi mboolem yoonu murit bi wépp bàyyiwul kenn ñëm ñëpp a fi teew moo tax sax bu ngeen gisee délégation bi daanaka ni mu ko composé daanaka mën nañoo wax ne fenn fu ne rek ci yoon wi rek jëlee na fa kenn koo xam ne mën naa représenté njabootu yoon murid yëpp ci masaayix yeeg ay yi yeeg olamaa yi yeeg ñëpp noonu la dox noonu la composé délégation bii nga xam ne moom la àndal muy loo xam ne li ci bëgg a wane mooy Tuubaa yëpp ànd nañu moom dikk teew si fii ñooñu e bala ñuy fàtte danañu laa daldi di tudd muy muy Cheikh Mahamadul moom ci boppam ak mm, sëriñ Galas Kaltoom e, ak sëriñ Galas waaw ak Serigne Kaltoom kon nag ziyaaraat yi nga xam ne mooy am ci suñu diggante ak ci diggante kër yi waaye waaye na sax na wàcc ci suuf mas nañoo daje Maroc defe naa at moo xam ne ci adrusul xasaniya ñun ñëpp ñu daje fa muy daje boo xam ne dinu mujj sax waaru may leen lii dey noo nga ci Sénégal waaye mënuñ ko faam nun noo nga ci Sénégal bi bu set waaye occasion bii nu am fii amuñu ko ci réew kon nan fexe ba rabt suñu diggante ba buñ demee mu continuer ba waxtaanoon dañ fa waxtaan bu am solo ah yaakaar naa ne dana mas a dana mas a am incha allah kon daal ñii ñooy ñi ànd ak sëriñ sëriñ bi nag bëgg na lool xolam sedd na lool ñu nit suñu xol sedd na lool e, sëñ Baye nga koy wax léegi man bu ma waxee rek dinaa fàttaliku sama xarit mënut a ah, ñàkk sëñ Abdou Aziz xaritu sëñ bi sëñ Abdou Aziz si al amin man ànd naa ak moom lépp vingt cinq ans bi ñuy defar fédération association islamique lépp ñoo ko ànd mu nekk nit ku baax nit koo xam ne ah qualité yi ma jis ci moom néew na de waaye de nit la koo xam ne it liggéey na fi liggéey bu rëy diggante ba sëñ Cheikh Mouhamadou Bachir mii rek de seen diggante li fi bokk ñaar déeyoo liggéey man ma xam ci dara ak sëñ Bay mii lu bari la te ñoom ñaar day defar rek moo leen taxoon a jóg ñu loolu lépp nag moo tax tey jii moom itam sëriñ bi jógal boppam ànd ak njaboot bi gépp njabootu tubaab gépp dikk seet si leen ziyaare si leen